asalaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ñu am mbégte dalal fii kii di Cheikh Konaté nekk président de l' association des militaires libérés Sénégal pour le développement du Sénégal je pense. tout à ah, l' association des militaires libérés pour le développement du Sénégal euh, Cheikh nga nekk président et ancien militaire déjà qu'est-ce que ça te fait de regrouper tous les militaires libérés du Sénégal. waaw li may wax rek avant l'entame de de l' déjà maa ngi rafet lu waxtaan bi di remercier tribune Sénégal bi nga xamante ne nañu may occasion déjà ñu exprimer wu ak euh, le peuple sénégalais euh, notamment ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, suñuy membres les militaires libérés bon pour rebondir un peu ci répondre ci question bi rek damay wax ne c'est un c'est un plaisir hein c'est un plaisir et dama naan c'est continuité mm-hmm. parce que jiite ñi nga xamante ne c'est des militaires libérés dama naan c'est une commune ji jiite ñu ñu neex a jiite mais également ñu naqaree jiite neex nañ jiite parce que ku xam armée xam ne ci ay ordre la la ñuy wéyee. Mhm. donc su fekkente ne dafa dañoo dellu également ci vie civile éducation boobu noonu nekk armée rek je pense que moom lañuy continuer di di di véhiculer donc loolu moom mooy mooy mooy neex a jiite bi difficile jiite rek mooy parce que dañoo strict. parce que strict la ñu armée jàngal donc strict boobu noonu ci la ñuy tegu ba lépp lu ñuy tegu dañu koy teg ci ay base yoo xamante ni solide la. lu tax ngeen taxawal association bi mel noonu. waaw déjà damay wax historique bi laay joxe rek parce que association bi lañ ko 2008 lañ ko mettre en place. 2008 2008 waaw 2010 ñu njëkk teg euh, def une organisation boo xamante ne pour yëkkati équivoque maanaam créer benn journée de lutte contre l'insécurité pour attirer attention ñi nga xamante ne ñoom ñooy population yi quant à suñu existence déjà. mu nekk exigence boo xamante ne bu positive la mais l' association est reconnue plus tard en 2013 lañ ko reconnaître la ko état du Sénégal reconnaître ci la jox suñu récépissé de reconnaissance mais objectif bi c' était déjà jéem a organiser wu ba nga xamante ne euh, nguuru Sénégal bi nga xamante ne moom moo ñu euh, yóbbu armée moom moo ñu may possibilité ñu dugg armée euh, delloowaat ñu si suñu foyer defal ñu ay formation de qualification d' emploi ñu mën ko wax ne formation yooyu kat defal ngeen ñu ko waaye parce que dañu naan sànqal boo la wetoo euh, war organiser wu nañ ba nga xamante ne tey su fekkente ne da ngeen ñuy dimbali dimbali ñu dana nekk loo xamante ne lu yomb la ci organisation moo gën ñuy dem à rang rek boobu dimbali bi na nekk loo xamante ne lu compliqué la moo tax daal ñu organisation bi. Mhm. Mhm. Euh, vous faites à moom laay wax chaque chaque fois parce que tey bu fekkente ne dañuy wax wax. loolu dana nekk loo xamante ne lu compliqué la parce que tey déjà li ma njëkk a li ñu njëkk a wax ci association mooy jarul ñuy jaay ket carte kenn carte de membre parce que déjà nekk membre association weesuwul nga nekk un ancien militaire un ancien koo xamante ne nga deux ans d'armée parce que armée nit mënu fa jóge bon loolu laay wax chaque fois. yomb na parce que ñun armée dafa am lu ñuy jox li ñuy wax matricule d'armée. Hmm. sa matricule matricule boobu noonu képp koo xamante ne militaire nga matricule boobu yor nga te nekk na loo xamante lu neex ba Euh, yan jéego ngeen jotoo am. déjà lu ñu njëkk def mooy structurer ko ba mu tegu ci yoon. Mhm. def ci ay jéego def ay propositions à l'état du Sénégal. damay fàttali ko en 2010 bi ñu organisé journée de lutte contre l'insécurité bi li ñu njëkkoon wax mooy on allait mettre en place une société de gardiennage nationale maanaam boo xamante ne état du Sénégal moo koy encadré. plus tard bi ñu defee propositions yooyu. damay wax ne sax loolu moo tax léegi jeunesse bi ñu ci bari tey boo wax waxu projet donc du ma ne ñoom sàcc nañu suñu projet mais en tout cas li nga xamante ne ñun moom la ñu. xaw na nuróog xaw loolu. parce que mbébét bi nga xamante ne moom la ñu amoon mbébét boobu noonu dama toog jékki-jékki. gis Khalifa l'ancien maire de la ville de Dakar gis créer les volontaires de Dakar moom sax dañuy wax ne à chaque fois moom euh, à travers son l'actuel maire de la commune de Grand F Madiop Diop temps mu ngi nekk cinquième adjoint au maire. franchement pour dire que volontaires de Dakar yooyu également am na ay militaires libérés. mais li ci gën a doy mooy ay quelques années plus tard ci même euh, année boobu nga xamante ne ci la ñu am récépissé plus tard mois d'août ci la ñu créé li nga xamante ne moom mooy agence de réinsertion des militaires des kii agence de sécurité de proximité mm. mais boobu kenn associé wuñu donc loolu nekkoon na loo xamante ne bu ñu associé woon idée bi nga xamante ne moom la ñu amoon ak proposition yooyu noonu je pense que situation yi nga xamante ne ASP dañ ko tarret dinañ ko ñu ngi koy jànkoonte aujourd'hui waxuma ne du am mais nag dana nekk loo xamante ne xëy na peut être mën nañu ko éviter de justesse. d' accord bi ngeen bëggoon créer genre GIE la woon wala ba léegi association. ngeen ko nar a def waaw xam nga association bi déjà existence am. li ñu def rek mooy képp ku dul militaire libéré. bokkoo non agence bi ngeen bëggoon créer pour les. non agence bi entreprise la ko bëggoon def. entreprise waaw parce que ñun aujourd'hui dem nañ ba nga xamante ne on s'organise parce que on est représenté dans toutes les régions du Sénégal nag. Hmm. parce que sànq maa ngi la koy wax je pense que maa ngi lay wax sànq ne. Euh, li nga xamante moom la moom la ñu répartir si si mais c'est très bien fait parce que man loolu on l'a on l'a très bien fait et on l'a très bien réfléchi d'ailleurs parce que man déjà il arrive souvent que ma dem defi ay tournée dem seeti vers le vers le Waalo dem ci centre bi institut dëkk yoo xamante ne mën naa fa dem rek possibilité yi may nañu pour ñu dem fa ñu dem fa rencontrer les militaires libérés organiser leen ba nga xamante ñun li buy mbir di am njeexital dana nekk dana am ci militaires libérés yi. Mm. mais tey su fekkente ne ñun proposition yi nga xamante ne moom la ñu waxoon proposition yi gis nañu créer agence de sécurité de proximité te associé wuñ ci li nga xamante ne moom mooy militaires libérés donte na ay militaires libérés on s'en réjouit ñu ngi rafetlu a baax. Mm. pense que war nañoo. Euh, associé bu mënuloon en tout cas créer genre benn sorte favoritisme. Hmm. pour les anciens militaires. xam nga l'objectif c'était ça. Hmm. parce que tey boo tegee dix jeunes en tout cas jàppal ne cinq yi wala six yi ñëpp ay militaires la ñu woon hmm. donc c'était beaucoup plus facile parce que quelqu'un qui travaille dans la sécurité qui a été militaire ou gendarme auxiliaire est beaucoup plus habilité di liggéey ci sécurité que ki nga xamante dafa ko donte donte léegi ak la formation et autres noonu xëy na peut-être Euh, civils yi ñoom ma leen marginaliser parce que mënu ma leen marginaliser parce que c' est que au sein de de l' agence ils sont en train de faire un bon travail également mm-hmm. mais dama jàpp ne daal sécurité daal bu ñu ko waxee militaire libéré moo tax ñuy wax euh, sécurité mm-hmm. ok donc euh, xam nga déjà la transition chaque jour dama naan problème buñ ko weesu mm-hmm. entre la vie militaire et la vie civile loolu c' problème boo xamante chaque fois dama koy wax ñu war koo delloo ci foyer am transition boobu accompagnement waroon na ci am. Hmm. mais libéré ko rek bàyyi ko mu dem te moom li nga ko jàngal yow bu fekkete te li ñuy wax ci armée mooy jàng jàngal nit ki rek défendre. Hmm. défendre par tous les moyens. Hmm. heureusement que nous ñu ne la fàttal sa bopp sax da ngay fàttal sa bopp bien sûr. Ah, li may wax ne sax au Sénégal nous avons eu la chance d'avoir une armée républicaine une armée vraiment outillée en en en. Ah, voilà am benn niveau boo xamante ne niveau bu kii la mais. cela n'empêche pas également koo xamante ne def na deux ans booy waaj a libéré nga defal ko formation de qualification d'emploi hmm. kooku waroon nga ko accompagner d'autant plus que état du Sénégal day wax ne damay créer ay structures yu mel ni DER ay fonds JIP ANPEJ ak yu nu mel pour formation accompagner ak yu nu mel kee jot na formation ba jot diplôme am lu ci des kay mooy accompagner ko hmm. ci yan base nga ko accompagner mais laaj ko exactement moom ci lu mu bëgg nga nga fekk fekkete ne nga ko accompagner ci loolu au hmm. wala ci li nga xamante ne nga ko former nga accompagner ci exactement ci loolu donc ça pose le problème de la réinsertion c'est un grand problème également parce que réinsertion bu ñu ko waxee à chaque fois man je un point d'interrogation te année bi ñu koy créé boobu dañoo waxoon agence de réinsertion des militaires libérés parce que agent de réinsertion sociale des militaires militaire bu nekk en activité nga xamante ne yaa ngi ci biir camp ba logé nourri habillé comme ni ñu koy waxee armée kooku ban social la am boo feebaru ñu faj la kooku ban cas social lañ ko war a mun a kii donc su ma fekkee ne agence boobu dañu ko mettre à la disposition des militaires libérés réinsertion sociale c'est clair hein xool nu ñuy parce que social maanaam ci population yi rek sans problème non professionnalisme boobu ngay wax mm-hmm. professionnalisme mun ta weesu nga am sa certificat de qualification. bu fekkente ne am nga ko. Hmm. léegi yow ñi nga xamante ne jot nañ seen certificat de qualification d' emploi ñooñu réinsertion bu soxla mooy lan mais ay accompagnement la ñu soxla. Hmm. mais tey agence bee nga xamante ne tey dañ ko fa teg dama ne on prend à témoin les militaires libérés ñi nga xamante ne ay militaires libérés lañ boo fi tegoon dix militaires libérés nga laaj leen ndax xam nañu agence de réinsertion des militaires libérés wala agence de réinsertion sociale des militaires dañ naan la xamuñu ko. wala kenn moo la si xam naa ko waaye dégg laa ci am. donc loolu noonu agence boobu li ma koy wax sax damay faral di ko wax ne man agence bi li ma ciy wax au finish maa koy sax dimbali ci communication parce que l' agence ne communique pas léegi li nga xamante ne moom la agence bi mais non communication agence bi kenn xamu ko lal la lan la peut-être recrutement am na nga bind ne waa recrutement am na mais bu dee loolu kay loolu kay ñëpp xam nañ ko léegi ak le de réseaux sociaux léegi recrutement léegi kay lu am fu mu ne nii pour nit ñi xam ko léegi tout le monde est journaliste ci phénomène réseaux sociaux même si même c'est vrai que ils sont pas des journalistes légaux mais je veux dire que pour pour faire passer un message léegi c'est comme euh, euh c'est comme de l'eau à euh, mooy Sénégal fii constaté nañu quand même lu ñuy dafa bari quand même. loolu dama mën nañu jël 2000 personnes pratiquement retenir que 300. loolu loolu def nañ ci ay propositions yi nga xamante ne moom la ñu xaatim. yónni ko ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi. Hmm. parce que suñu waxee ne njiitu réew mooy le chef suprême des armées. donc proposition yi ñuy def mën nañ ko ko defaraat effectivement. Hmm. donc li may wax chaque fois loolu dama ne. Hmm. yow nga recruter trois fractions fraction bu ne lu mu bon bon bon bon boo leen dajalee ñoom ñett fraction yooyu yëpp danañ nekk presque ay neuf cent et quelques. pour nga libérer 600 yëpp na leen dem leen ñibbi seen kër yi waaye nag ay réservistes ngeen heure bu ñu leen soxla mën nañ leen woo wala boog jàpp leen ci concours paramilitaire bi gendarmerie ngi fii police ngi fii waaye ñi nga xamante ne amuñu. après deux ans de service militaire bien sûr après deux ans de service 4 mois à Bango 4 mois à Bango. mu a tuddee noonu parce que formation de qualification d' emploi amoon njeexital du nekk temps perdu mais bu dee da liggéey boo xamante ne na ci bu fekkente ne jox nañ nit ki ak ak yelefam mais si su fekkente ne c'est pour revenir pour nekk un de sécurité buy fay ko cinquante mille loolu moom temps perdu la donc li may wax rek mooy war nañu repenser ci méthode bi nga xamante moom la defee recrutement yi genre yi mel noonu parce que yéen ñëpp gars yi nga xam dañ leen libéré mën nañ leen nga sànq loolu laay wax. pourquoi doo leen def proposition yu mel noonu ñu am réew parce que mu ngi am États-Unis d'Amérique. on a xam nga xam nga xam di ma ko waxee rek. Hmm. ni ma ko waxee xëy peut-être moom mooy moom moo xawoon lënt ci bopp opinion bi ñuy seetaan. Hmm. mais dama ne l'agence de sécurité nationale euh, une société de gardiennage nationale. Hmm. bi ma koy wax dama le préfet le sous-préfet d'alors des parce lii de pertinence bi suma koo dégg fenn parce que dama ne woon on va travailler en collaboration avec la police et la gendarmerie mais une société qui sera encadrée par l'État du Sénégal loolu kay xanaa moom mooy police privée nest pas donc man li may wax rek mooy repenser li nga xamante ne moom mooy euh, mode de recrutement bi loolu dafa nekk loo xamante ne urgence la te c'est ah impératif mhm. parce que tey transition bi may wax sànq mhm. deux militaire de même quartier demandoor armée kenn ki ñu maintenir ko kenn ki ñu bàyyi ko mu libéré kooku est-ce que le poids de cette libération est-ce que moom dana ko attan est-ce que ce poids là ne mënu ko pousser ci loo xamante ne source d'insécurité la doon même bu fekkete ne loolu nekkul moom la ñu jàng dans l'armée mm-hmm. mais li may wax loolu beneen bi tamit ci gën ëpp importance mooy même bu fekkete ne da nga ay militaires tey tey am na ci ñoo xamante ne ñi nga xamante ne tey ay contingent 2004 2005 2006 mais tey war nañ leen offrir la possibilité tey ñu mën a admis ci concours parlementaire yi yokk tranche bi nga xamante ne moom la wax ñu yokk ko chaque jour dama naan à chaque fois li may li ma ci li ma ci. d'ailleurs d'ailleurs ci manifestation yee ñu weesu wane na ne Sénégal dafa manquer effectif sérieusement dans beaucoup de corps la police la gendarmerie parce que quand tu vois vingt mille vingt euh, policiers qui font face groupe de jeunes qui centaines de de personnes c'est c'est insuffisant. waaw loolu mën nañu wax ne c'est insuffisant malgré li may wax chaque fois rek. parce que mm. parfois là non nous avons eu la chance d'avoir euh, des forces de défense et de yoo xam ne c'est des stratèges bien fermes bien formés mais nag quoi qu'on puisse dire. bu fekkente yaa ngi naan chaque année maa ngi recruter ay gendarmerie gendarmerie maa ngi recruter ay police donc ce qui veut dire que kon sa effectif des na lu bare bare bare donc loolu laay wax sànq déverser ñii nga yóbbu ko ñu gendarmerie ñii nga yóbbu leen police pour renforcer nga mayet possibilité ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ñoom ñoo nekk les les les libérés nga may leen possibilité yokk seen tranche d'âge pour que li nga xamante ne moom parce que fee di wàññi euh, euh, bi di nga ko wàññi bu baax a baax mais fi également di nga yokk euh, nombre effectif bi nga xamante ne moom nga soxla pour que ñu mën a les méthodes de libération la di nga gis nit koo xam ne amagul 35 ans ñu libéré ko xam nga gis ko amul 40 ans ñu libéré ko di nga xam ne ci même grade bi lay nekk à 50 ans ñu libéré ko est-ce pas de problème aussi jotuñu ñu xool nu ñuy libéré gars yi au moins xam nga li may wax à chaque gis nga hmm. les forces de défense et de sécurité, l'armée, les corps paramilitaires, il est important aujourd'hui que État du Sénégal ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen ministère du tutelle xool naka la ñuy def ba gën leen a valoriser parce que ces ces ces gens c'est des citoyens comme comme comme nous mais c'est des citoyens qui ont en en charge la sécurité des personnes et des biens mais bu fekkente ne ñooñu tey ils n'ont pas la possibilité amuñu possibilité def comme gendarmerie ak poli euh, yi ak euh, enseignants yi ak yeneen corps yi nga xamante ne am nañu possibilité dem grève yokkal lañu suñu salaire ak autre hmm. mais ñooñu tey jii nii war nañu mën a am entretien mais war nañu mën a am entretien boo xam ne entretien bu traitement bu baax ah l' bi may joxe rek mooy à chaque fois euh, du exemple boo xamante ne euh, bëgg naa faral di ko joxe mais exemple la boo xamante ne exemple bu vivant la Casamance ngay wax bii <laughs> gis nga les les militaires yi fa nekkoon maa ngi lu sax dirigeance su état du Sénégal parce que c' est non CEDEAO moo ko kii. c'est vrai que moo ko mais. sa su may li may wax mooy. je veux je veux dire par là que au moins État du Sénégal a été professionnel ci cadre boobu noonu parce que ils ont fait des choses avec la CEDEAO de manière ba nga xamante ne bruit yu jógul te réglé nañu les les les choses même bu fekkee ne ba ñu libéré gars yi delloo nañu seen i mbokk. mais boo xoolee ci loolu noonu ñooñu nga xamante dañuy hypothéquer seen àdduna pour l'honneur de jaay seen bakkat pour l' intérêt de la nation ak l' intérêt sécurité de la nation ak sécurité ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu ñoom ñoo ñu xaw a jege ak yu nu mel donc ñooñu boo xoolee ne ñii xaaral ma yokk ay yokk seen seen seen dundin gën a ñoŋal seen dundin mm-hmm. mais ñooñu boo ko deful. dégg naa ministère feeku na fi 11000 la xam ma loolu du ci mën a sore parce que salaire amul benn salaire amul kuy fay. 1 million mais mais foog ñu wax ko quand même. y deux ans de service yi ay trente 30 ay. moyen que ça parfois. waa militaire yi nekk en activité. waaw tey boo leen laajoon seen salaire xëy na peut être nañu la wax mais dama ne. ñun en parce que boo leen ko wax sénégalais militaire boo ko militaire boo ko doon fay 500000 par jour. ngay fay gendarme 500000 par jour police wala ak mu mën a doon nekk si corps paramilitaire doyul loo ko mën a fay doyul Ah, donc li mën nañ leen fay lu baax. mais bu baax loolu laay wax. mais mu na baax mën na tane. xam nga damay wax chaque fois man je ne suis pas l' avocat de ces gens là mais il est important ma wax wax leen parce que j'ai vécu ce qu' ils sont en train de vivre. c' est important donc li may wax. loolu conséquences yooyu mooy waral nit ki bu ñu ko libéré indaale woo dara. Hmm. suba bu ñu la soxlaa ci ci maquis bi ci robel yeeg mën nga dem ah. waxuma la foofu sax dafa sori. mais marginalisation bi ñu lay marginaliser sa biir famille. sa entourage ak yu ni mel loolu rek stigmatisation boo xamante ne mën na jur cons mën na mën na jur conséquence yu ne. voilà parce que bari na doon nekk ci quartier yi. mais justement mën nekk sa agresseur ah. <laughs> ah abaar ah, mais li ma la jàngal nañ la dóor fetel jàngal nañ la self hmm. nañ lay dóoree ñëw parce que loolu genre diminution la en hmm. réalité sociale la nañuy wax en tout cas l'état am responsabilité am nga xam ne dañ leen di libérer automatiquement bu ñu nekk en danger potentiel boo xam ne dafay traîner dans les quartiers nañ leen occuper man na ne xam nga loolu moo tax moo tax dama ne moo tax moo tax dama ne état structure yi nga xamante ne moom la teg war naa renforcer recrutement bi war na renforcer non seulement recrutement bi li may wax. Mm-hmm. formation bi nga xamante ne moom lañ moom la ñuy ak accompagnement bi ak financement bi nga xamante ne moom lay wax ci structure yooyu. Mm-hmm. ñi nga xamante ñoo war a accompagner les jeunes ak les femmes. les jeunes ak les femmes militaires libéraux war nañu cee jur parce que les militaires libéraux également am on a une section féminine dirigée au passage maa ngi koy nuyuwaale la présidente Awa mais. structures yooyu les femmes là yi nga xamante ne porte nañu volontaire dem armée mais franchement on doit les accompagner parce que kooku elle est en train d'abattre tey par exemple un travail titan un travail un travail de fourmi dans la plus grande modestie xam nga koo xamante ne avec ses propres moyens mu ngi jël ay xale yu dëkk ay dëkk quartier di leen defar ay circoncision gratuite di leen accompagner te faykul dara mm. kooku jiite commission bu mel ni commission des militaires euh, commission euh, section féminine bu association des militaires libérés hmm. mais kooku boo ko accompagner xam nga koy accompagner mais loolu noonu lépp sax li biñ ci liñ ci wax à chaque fois dama naan structure yi fi état du Sénégal teg dañoo war a amal njëriñ nit ñi ñi dañoo war a amal njëriñ parce que njëriñ bi du nekkul rek chaque année nga taxaw rek ne def sa def sa def sa bilan rek ne def naa lii def naa lii def naa lii mais loolu ngay def noonu dafa war a am ay njeexital ci nit ñi nit ñi di ko mën a gis hmm. tey par exemple DER bi ñuy wax nii tey mais DER ñun lu ñu waroon seq ak ñoom yëpp def nañ ko mooy bind def ay proposition wax suñu xalaat ñoom aussi ñu wax ñu exactement li nga xamante ne moom la ñu xalaat donc ñu ngi leen di déglu def nañ mais no xam nga ñoom effectivement ñoom DER même su fekkee ne amoo projet sax ñoom effectivement ils peuvent t'aider à réfléchir sur un projet defaral la la formation ci projet boobu noonu monter le GIE bi defar euh, accompagner la ci li nga xam parce que loolu ñoom loolu la fi nekkee dañ leen fay pour loolu donc li may wax mooy ils ne doivent pas y avoir de parce que su ma fàttalee ko ci jamono am na premier ministre bu fi waxoon ne on accélère la cadence accélération de la cadence boobu noonu boobu dafa war a continuer tey jii nii c'est pas parce moom wàcc na rek cadence bi dafa war a ralentir dañoo war a la cadence ba nga xamante hmm. dana am njeexitali carrément ci population ba ku ne gis si boppam. loolu am na solo. c'est ça. ok le président de la république. message bi may mooy les militaires libérés am nañu xalaat ci réew mi am nañ ci xalaat bu baax. ci xalaat. tey boo demoon assemblée nationale tey une seule fois laa mos a fàttaliku ñu wax plaider les militaires libres te loolu maa ngi euh, euh, nuyuwaale ki nga xamante ne moom mooy Théodore Montey l'honorable Théodore Montey parce que dama ci waxtaan ak moom waxtaan ci également ak yeneen député yu bëree bëree bëre waxtaan ci waxtaan ak ñoom face à la situation des militaires libérés boobu laa mos a dégg ñu évoqué ko fa te pourtant. réflexion si ay wàllu sécurité yu nu mel ak yeneen d'autres sujets yoo xamante ne c'est des sujets qui qui intéressent le le pays dañ cee war a xalaat temps yi temps yi on a commencé on a on des rencontres avec les responsables politiques parce que tamit également c'est vrai que nekk militaire libéré nekk ci benn structure warulaa mën a tax nga indi sa xalaat yi. demandé wala audience président. ah kay bien sûr que def nañ ko. ñu ngi xaar amagul réponse mais am nañ yaakaar ne xanaa dina am réponse. na bi ko defee. waaw yàgg na. lay mat ay weer wala wees na weer sax mu weer mais jàpp nañ ne xëy na peut-être bu àggee ci moom dana dana parce que li ci def amul ci lenn loo xamante ne lu ñu lu dañ ko dañ ko cee wax rek pour suñu mbirum bopp ak yoon mais ci réew mi la concerné. Hmm. réfléchir ci li nga xamante ne moom mooy situation réew mi réfléchir naka xam na nga xamante ne moom la ñu mën a def pour que avancer réew mi avancer mais loolu moom laay wax ne poussé nañu réflexion boobu noonu bay seet ci ñi nga xamante ne ñoom parce que xam nga boo demee di seeti euh, le parti au pouvoir bàyyi opposition bi wala nga seen opposition bàyyi parti loolu mën nañu ko gisee neneen te et puis loolu ce ne serait pas du tout euh, du nekk loo xamante lu démocratique la hmm. mais suñuy idée suñuy xalaat dañ koy jox y compris l' y compris y parti au pouvoir mais jàpp nañu parti au pouvoir hmm. moo fi nekk loo loo moo ñu coiffé ñu ñëpp moo ñu yilif moom moo ñu mën a apporter li nga xamante ne moom moo moom moom moom moo Sall. di nuyu diligence su euh, Mamadou Lamine Diallo tekki. Hmm. on est allé la rencontrer waxtaan ak moom. honorable député franchement waaw honorable député Mamadou Lamine Diallo tekki. Hmm. ak euh, ñi nga xamante ak d'autres ah. dem ngeen ne a <laughs> dama ne dama ne. tollaguñ sax fu ñuy créer fu mu ne nii fu ñu toll mooy waxtaan xool li nga xamante ne moom mooy mën nañu créer des des polices municipales. waaw xam nga ñun xam xam nga ñun tey dem nañ seeti Mamadou Lamine Diallo Tekki am na lu mu ñu wax. ñu seeti ñu seeti Déthié Faye mu euh, le coordonnateur de pôle na li ñu waaw nit ku macha allah nit koo xamante ne ku waaw macha allah kooku moom rafetlu nañu ñoom ñëpp la ñuy rafetlu seen i kii mais notament moom également mm. mag la te franchement pour dire vrai il a de l' expérience. Hmm. seet nañ ko mais ay sonkook ñi ngay wax nii ak Barthélémy Dias ak. Khalifa Sall mais ñoom ñëpp la seeti waxtaan ak ñoom. wax leen suñu xalaat ci réew yi ak ñi ko yor. seeti leen ñëpp mais bu baax a baax bu leen gis nga développement. Hmm. c' la base. ah oui les collectivités aussi war nañu am war nañu ab indi seen seen apport. ci li nga xamante parce que tey amul benn dëkk booy dem boo xam ne amul militaire libéré te collectivité locale am na ci yoo xamante ni seen compétence la ñoom lañ bu leen defee politique nag <laughs> merci beaucoup waaw ok ñooy lay Cheikh c'était Cheikh euh, Konaté mm. nekk président association des militaires libérés pour le développement du Sénégal mm. ñoo ngi lay jaajëfal on a parlé des problèmes de ces gens de ce corps là qui mm. est encore important parce que quand ñoom ñëpp gis nañ leen gis nga militaire yu euh, service yi ñoo fa nekk souvent ils sont des c'est des chauffeurs ñenn ñi dañuy nekk dans mais c'est des gens corrects. Mhm. c'est des gens corrects et très dégourdis qui respectent leur aussi. waaw donc ñooñu mënuñu leen bàyyi noonu quand mhm. war nañu leen mën a utiliser pour ñu gën a amal njëriñ seen bopp pour ñu gën a amal njëriñ réew mi président de la république moom ku sensible la c'est sûr et certain. Mhm. bu leen xam nga président mbir yi da wër tellement que. bu amul kenn ku jug porter benn dossier na ko fàtte. waaw continue leen médiation bi. tudd mm. leen ko lu bëri ci seen débat yi. Mm. Euh, bu ci jotee ñàkkul ne dina ci def dara parce que quand même c' est c' est important on doit pas vous négliger. c' est Ukraine. Mm. Ukraine par exemple deux cent mille et poussière soldats la am actif. pendant que ñoom dañu yor à côté un million et deux cent poussières euh, sous réservistes. Ah. léegi bu ñu leen bombardé nii dañ ne dix huit ans. kon ce qui veut dire que y a des militaires. de 18 ans presque qui hmm. vient qui reviennent on les libère. c'est clair. t'as vu nee na 18 ans ba 60 ans. kon hmm. Minitel kon mën nañ ko soxla ba 60 ans. c'est clair kon c'est pas normal ko ñu leen di teel a. Hmm. teel c'est important merci beaucoup yéen tamit merci.